proviseur bi lycée waaw mais di sant yàlla bu baax rek xam nga boo jiitee école lu lépp lu ñuy def si école bi yow lañ koy defal waaw moo tax daal maa ngi sant yàlla bu baax a baax euh, di sant l'initiateur euh, sëñ Mourtala Guèye euh, di sant ñi fi teew ñëpp sant Serigne Cheikh Diop parce que moom tamit moo ko dox sant gouvernement scolaire sant xale yi fi nekk yëpp waaw lii daal mooy euh, doxal école école dafa nekk loo xam ne ñëpp ko moom c'est pour la communauté donc ku si dugal loxoom ku ne waa école bi lay jàppale parce que état bi du mën a def lépp lycée aussi budget mënul def lépp donc daal tey mbégteel bu laa am ñoo dalal ñii ci cérémonie euh, plantation des arbres yi bon li sant yàlla aussi parce que xéewal gi mooy bi ñu planté ba pare rek dafa commencé taw donc loolu c'est bon signe et euh, li may jeexalee mooy peut ñaan waa dëkk bi ñu def comme euh, sëñ Mourtala Gueye parce que doomu Touba la bon jànge bon xaw ma ndax fii la jànge ou pas mais daal am na initiative jàppale école bi man maa ko si sant bu baax a baax au nom nag de toute l'équipe pédagogique waaw maa ngi fii ak euh, proviseur monsieur Diouf professeur espagnol maa ngi fi ak euh, monsieur Diouf président de l'amicale de enfin des parents d'élèves maa ngi fii ak euh, SG Jefal waa donc daal maa ngi santaat bu baax a baax waaw du ñaan di continuer oui oui soxla nañ ko bien sûr xam nga école moom euh, dafa am condition yoo xam ne sax la ñuy defee journée continue parce que condition journée continue dafa bokk xale yi am fu ñuy lekkee am fu ñuy toog aussi en période de récréation ak donc garab mënul ñàkk ci euh, école ne serait que pour journée continue waaw donc lu ñu soxla woon la waaw maa ngi tudd Mouhamadou Mourtada Gueye Euh, dëkk Touba nekk PDG entreprise Touba Dental. waaw loolu moom euh, jëf la boo xam ni defaluñ ko suñu bopp rek ndax euh, yàlla dafa dogal ñun ak école bi ñu seq lu bare bare bari dama fi ñëw gis situation élèves yi ni mu méttee nekkin bi ma xam ni kat am na lu baree baree bari lu makkaan mi soxla Euh, ñu ni nag ñun nañu jaayante ndax ñun ñun ñu pare ngir def loolu ay ndaw lañ doon ay liggéeykat nekk ci dëkk bi mais sunu doolee sax demeewul noonu mais xaj na bëgg-bëgg bu nu am ak yëg-yëg bu ñuy am chaque jour moom moo ñuy poussé euh, ndax bi ñu ñëwee gis loolu ñu jaar fi ñu war a jaar euh, di profito di remercier sous-préfet Sarr Kayel ak le capitaine Guèye moom moo nekk Eaux et ci jàppandal gi ñu jàppandal suñu bëgg-bëgg ndax dañu gis ni eh, école bi war na mën a am ker goo xam ne tey ñu élèves yi nga xam ne nii dañ fi nekk bu ñu fi nekkee nekk ci condition yu jaar yoon waaye du loolu rek ndax lii bokk na ci li gën a ndaw mën nañu wax ne moom mooy première acte ndax am na programme boo xam ne teg nañ ko pour partenariat entre Dendey Décor ak établissement Kéré mbay ci liggéey yu am am solo ci yeneen fànn yoo xam ni yaakaar na ni bis bu ñu si yàlla dimbalee école bi dana si gis boppam dëkk bi dana si gis boppam élèves yi danañ si gis seen bopp incha allah. kenn ku ci nekk ku ko xam ku fi ñëw ku fi ñëw lépp xam na jafe-jafe yi nga xam ne nii ñoom ñi ngi koy daj te it euh, ñun ñoo leen war a taxaw loolu moom dañ ciy tàllal sunu loxo mbooleem autorité yi di ko tàmbalee ci le maire Abdou Lahad Ka ndax act bi yëg na ko di ko wax sous préfet mu jëm ci préfet gouverneur ba ci président ak bépp kilifa boo xam ni tey war nga jot lii ndax am na loo xam ni ñun ñi nga xam ne nii ñun ñoo leen ci war a taxawu bu ñu taxawul rek jafe-jafe day gën a bari ndax ku ne xam na ni diggante Kéré mbay ak Ndindy diggante boo xam ni soriwul tey boo quitté woon doo fi def sax benn 20 minutes mais ku ne xam na ni yoon wi yoon wi am na jafe-jafe lool kenn amul foo jaar. tey boo départ fii presque mën nga def une heure de temps diggante Kéré Mbaye ak Ndindi ci ndax ñàkk yoon moom moo ko waral élèves yi jafe-jafe yu méttee méttee métt la ñuy jànkuwanteel waxtu wu ñuy jug di jàng da leen sax yërëm te loolu lépp mën na ñàkk da gis ko am cours 14 heures day obligé ñëw 7 heures loolu ku ne xam na ni métti na te loolu lépp xaj na kilifa yi ñàkk taxawaay bu ñu taxaw moom moo ko waral te it am na ci loo xam ne ñoom la war ndax ni yoon du sunu domaine amuñu doole bi kon da nga tàllal loxo bépp autorité boo xam ni da ci tàllal loxo nag état ndax loo xam ni rôle état la ndax bëri na tali yu ñuy def tali bii moo ko ëpp farata ndax suñuy doom rek ñoom ñoo fiy ñëw ak suñuy rak ak suñuy jarbaat di fi jànge kon loolu dañ leen ciy tàllal loxo école bi ñoom damay sàkku ñoom ñu ñëw fi autorité yi nekk si dëkk bi nañ fi ñëw def visite ndax ku fi ñëw xam nga ni lii am na ci loo xamante ni war nañ leen a taxaw ndax salle de classe yi ni mu mel école bi ku fi ñëw daal moom bu soobee yàlla da gis loo xam ni da xam ni ñii kat condition yu ñu nekkee métti na trop te soxla nañ ku leen ci jàppale. fii moom macha allah ndax ñun ñii wax loolu xam nañ si lu bari ndax man mën na ma wax ni man sama njaboot yëpp presque fi la ñuy jàngee ñëpp te kenn ku ci nekk waxuma la dara waxuma la jàng bi mais éducation bi ñuy def ci yow moom dafa ëpp solo lépp waaw te résultat yi ni amit maanaam région bu Diourbel xam nañ Kéré mbay taxawaay bi mu am ci wàllu njàng. loolu ñëpp ko xam loolu moom nekkatu lu ñuy laam-laamee kon nag dañ leen a war a taxawu dañ leen a war a jàppale ci côté bu nekk. Maam Góor Diop chef de village de Kérem président APE du lycée di ko rafetlu lool ndax bi ma koy Cheikh Diop seriñ Cheikh wooyee daf ma defal vocal wax ma ko fekk na proviseur yëgaleen ma ko tamit naan ma dina ma boole ak sëñ Mourtala jox ma numéro am ñu jokkoo ci lii daal de acte boo xam ne bii ñun ñun lañ ko defal ndax école bi environnement bi ni mel man dem naa lycée Mbacké dama fay dem toujours parce que balaa ñuy am CM balaa ñu am lycée sax dama dem ci Keita proviseur di jokkoo ak moom élèves yi boroomi licence ñu ngi fi te foofu lañ jaar balaa ñuy am ñun nag bi ñu amee xañ na di njaal benn la mais environnement bi daal ni mel lii daal rafet na pour mu jëmmal ko ñëpp koo fukki loxo man daal li ma xam ne moom laay yëgal yi nga xam ne ñoo seq liggéey bii muy garab yi ñu war a jëmbat ñu fullaal ko faydaal ko suuxat ko te bañ a suuxat tey bàyyi suba waaw te loolu daal gardien bi ci boppam laa ko chargé moom ak ku ko mën a jàppale ak élèves yi nga xam ne yi tamit kooku it ñëpp laa koy ñaan garab yi kat bu ma sañoon mu dund ay classe soxla nañ ko parce que loolu moom du sama domaine xañ na waaye nag sañ naa cee wax ndax gis naa décalage bi ñuy def élèves yi sonn bi ñu sonn sonn wun ma wax ñii boo xëy see 10 heures war a wàcc war a dugg 14 heures wàcc mi di war a dugg 14 heures ñaari waxtu yi ngay def diggante boobu environnement bi am na ci solo garab yu sedd baax na fi fooy toog di am foo mën a xiwloo bëccëg gi nag tamit boo tegu boo amul garab ci biir dëkk bi lañuy dem wax dëgg yàlla loolu metti na ma trop li ci dolliku euh, boîte pharmacie soxla nañ ko loolu laa ko mën a tuddee man noonu laa ko xamee daal man ko ne waxee ak euh, salle informatique waaw infirmerie ak salle informatique daal yooyu loolu daal lu soxla woon ak i classe pour ma jàll si affaire transport bi foofu moom tamit euh, yitteel nañu lool Kéré mbay mu ngay groupe scolaire 18 classes boo xam ne bi élémentaire bi am na ko am ay 1200 élèves lycée bi ñëw 1300 moom mën na am na franco arabe 400 élèves plus benn village bu sës ci Kéré mbay am na cent élèves Kéré Ndaw te diggante Ndindi ak Kéré 95 pour cent élèves yi fii lañuy jaar ci tali bi ci rang ak yooni suuf metti lool muy loo xam ne lu ñu xam la te mënuñu ci dara di ñaan koo xam ne kii man am nga ci ndimbal nga dimbalu na ci te yàlla tax te xale yi boroomi licence jóge na Kéré Mbaye yu bëri mënu ko lépp xañ na nag yéen du ngeen xam loolu mais 93 ba léegi maa ngi fi lu fi nekk xam naa ko ndax c'est la première fois lii am ndax dëgg yàlla dinaay gis sax yenn saa yi ñu naan Kéré mbay doon nañ wax fii waaye nag nii mu demee nii man ci jëmbatu garab bii la ma gën a ñore ñu waxaale ci suñ soxla ndax lii daa war a jiitu environnement bi daa war a rafet ku fi ñëw sexel xel dal élève boo ñëwee fekk sa doom di fi jàng di ko encouragé wax dëgg yàlla euh, euh, yéen waa presse tey mooy xam naa <laughs> bis bu njëkk nu njëkk a gisante waaye man dama leen a soxlawoo sama village bi waaw village Kéré Mbaye dañoo soxlawoo waa presse parce que ñun daaw ñu jooy ci rajo yeeg tele waaye nag xam nañu li ñu war a xam wax dëgg ay cadre ci dëkk bi ma nag man nag ay la waaye nag teewul ne am naa yéene ne daal li ñuy wax ci rajo yeeg yi muy ci yeneen dëkk yi xañ na ñu nga cay jëriñu wala jëriñu ñu ca nag werante ma ne nun war nañu nam war a ñooñee na wax dëgg yàlla war nañu wax nag parce que jot na waaw jërëjëf